rek wujj ko bokk na ci liy defar seen def ñu ànd ak ñu dëppoog ñoom ci wax jooju délégation yahudi yi daal di dem ci géeju Xatfaan woo leen wax leen li wax waa Quraysh ñu ne wuyu leen ñu jóge fa dem wër ci géeti arab yi nekk foofu yëpp ñu bari wuyu leen noonu lañ réussir ci dajale ay kuréel yu bare bari pour ñu xaase ak yonent bi ak jullit yi bu gàtt rek kuréel soldat yi daal di génn waa Quraysh ak Kinaana bàyyi ko ci wetu Ndijoor ak ñi leen di jàppale ci waa Tihaama dajale lu mat ñeenti junni nit Abu Sufyaan jiite leen Banu Salim ñëw fekk si leen jóge Maru Zahraan wàllu penku bi giiri Xattaan bàyyi ko Banu Fasaara Uyayna ibnu Hisn moo leen jiite Banu Murra Xaaris ibnu Awf moo leen jiite Banu Asja Mus'ir ibnu Ruxayla moo leen jiite lépp lu ñu jëm si Madina joxante farante wu pour dal si ci kawam ak doon wax ne mat na fukki junni nit lañ dajaloo bu bay bi yonente bi déggee seen wàccaay woowu mu daal di gaaw dajale saxaaba yi waxtaan ak ñoom diisoo ñoom ñu leen lu ci pexe bi mu diisoo ci biir diisoo bi la ku ñuy wax Salman al Farisi joxe ak xalaat ni ko yow yonente bi yàlla bi nu dey ci suufu Faris daanañu def bu ñu ñu wëree ndomba bu ñu ñu encercler dañu daan def laare dañu daan def xandaq bu fekkee xas nañ wër ñu ba pexe amatul dañuy fexe ba gas mel ni ngaare bu mag dugg ci biir ba kenn du mën a agsi ba noppi nag toog ci biir di ko di ko di ko aar ba kenn kenn du ko mën a tëb waaye bi ñu joxee xalaat boobu mu doon xalaat bu xereñ boo xam ne arab yi sax loolu bokkutoon ci seen plan de guerre yonente bi d'accordal ko ko daal di joxe ndigal daal di joxe ndigal léegi ndax madina bi ñu ko xoolee wet yëpp ay tool yi tendement ko wër ak i doj ba kenn mënu ko jaare fenn fu dul ci benn buntu muy buntu càmmoñ buntu càmmoñ boobu ñu mën a jaar nag lañ xool ñu kon nañ fa gas ngaare bi ndax foofu rek lañ mën a jaar pour jàll si léegi yenente bi ñeent fukki nit ñu ne fukki nit yu ne mu jox leen ñeent fukki xasab ñu war ko ngaare moom ci jëmi bopp mu ànd ak ñoom ci gas boobu ngir soññi leen léegi jullit yi continuer ci ngaari loolu di ko gas ba mu egg dëkk yéefar yi di agsi yonte bi génn ànd ak ñetti junni nit ñëwee wéeru ci doju silla daa ci sangewu def ngaari li mu dox seen diggante ak yéefar yi chaar bi nga xam ne moom lañ doon moo doonoon seen màndarga li di ko waxee ñun jullit yi mooy xaamim laa yun saroon xaamim laa yun saroon lañ doon wax yëfar yi bi ñëwee nag ba bëgg a song Madina gis ngaare lu yaatu lu dox seen diggante ak moom ñu ni kon te loolu moom xamuñ ko woon xam ne nii lii meneen pexe la moo xam feneen la bàyyi ko waaye du du taxam arab ndax arab yi xamuñu woon loolu seen seen plan de guerre li ñu ko li des mooy nañ leen wër nañ leen encercler taxaw fi rek dara du dugg dara du génn waaye loolu it mënta yàgg ndax waaye jëliñ ko léegi ñu taxaw fa diir bu yàgg jullit yi it pexe mañ ca def mooy dañuy taxaw ci wetu ngaara li yor seen i fet fexe ba duñ ko jege ndax bu ñu bàyyi ñu jege ko mën nañoo sàkk pexe muy mën nañu wut lu mel ni suuf fexe ba ñu ab pont bu ñu mën a jaar pour jàpp waaye loolu it duñ leen ci bàyyi ay fet lañ yor ku jege ngaara lañ fet la mooy sax duñ mën a agsi ci ñoom dañ ci jot de ko si ñëw daal ku ñuy wax Amr ibn Wudd Amr ibnu Abdi Wudd lañ koy wax Amr ibnu Abdi Wudd ku naqari woon dara la mook Akrama ibnu Abi Jahlin ak Baydaar ibnu Xattaab daal ñoo fexe ba jaar ci bu ci fu xat ci ci ngaara bi daal di tëb fexe ba agsi bañ agsee daal di woote léwtoo Ali ibnu Abi Talib jóg jaakaarloo ak Amr ibnu Abdi Wudd moomu waaye diir bu gàtt lañ am mu rey ko suñ ko rayee ña ca des tiitaange dugg seen xol ba dañoo gaaw daw ba Akrama ibnu Abi Jahl moom dafa sànni xëy ba ñëwoon daw dañu war fa nekkoon. yëfari noonu la ñu wëree noonu la ñu defee wër googu ñu waroon xandaq bi muy ngaari loolu toog nañ fa lu mat weer mbaa lu jege weer waaye la lijjanti mbir ma bàyyi ko ci yàlla ndax benn waay bu bokk si biir xatfaan ñu di ko wax Nuaym ibnu Mas'ud moo ñëw ci yonente bi jébbalu bi mu ñëwee ne ko man de damaa jébbalu te sama waa kër xamaguñ jébbalu naa damaa bëgg nag nga xool lu la neex nga digal ma ko yonente bi mosu ni ko yow kenn nit nga waaye nag seetal loo mën nga def ko ndax xare ay pexe rek la mu daal di gaaw dem ci giiru bani xuraysa fekk bani xuraysa ay yahood la ñu nekk ci biir madina li yonent bi si yéntu nag ñoom mooy ku koy xeex moom buñ farle ko waaye ñoom itam ku jóg pour xeex leen moom yonent bi moo leen di aaraal waaye ñooña seen mbokk yee ñëw nañ waar leen bañ ànd ak ñoom firi colère gi ñu seqoon ak yonent bi waajal ab xeex ngir ànd ak yéefar yi ba def ay point yu kii yuñ feeñal yoo xamante day feeñal daal àndatuñu ak yonent bi ba yonte bi yebal fa nit mais dafa dégg ñun dañoo firi ko léegi ne ko da ngay dem gëstu ma ba xam bu fekkee ni firiwuñ ko nga xam ñu ngi ànd ak ñun ca la ñu nekkoon ba léegi boo ñëwee mën nga ko wax ca kaw ñëpp déggandoo ba fekkee ne dañoo firi ko léegi fexeel ba bu ko wax nit ñi di ko dégg waaye da ngay def jox ay signes yoo xam ne dinaa ca xamee ni léegi dañoo firi ko léegi kooku ba mu demee wax ak ñoom dégg ca ni ñi andi ñoog ñoom firi nañ ko léegi doxoon seen dégg te yonte bi bu ñëwee dañu yonte bi abdulun wa qarra fekk ñooñu mooy ñaari giir yi nga xam dañoo ñëwoon waneen dañoo jëbal bu fekkee ay war lañ dal yent bi xamee ca ni kon yaxoot yi war lañ muy yaxoot yi ba ñuy xoolee sax war nañ ko mu doon jafe-jafe loolu ci jullit yi ndax bu fekkee ni léegi yéefar yi dañoo dajale fukki junni nit ñëw nekk ci buntu Madina ñoom ñu jamaatoo ak ñoom te am na ay yaxoot yi nekk ci seen ginnaaw mu yaxooti ba ñuy xoolee sax bu yàlla dogaloon ñu ànd ak yéefar yi ba doxalee ginnaaw rek loolu ba boobaa kon dara du ko jar ci àdduna waaye nag yàlla ci ab liggéenteem mu yebal waajur ji mu ñëw jëblu si mu ñëw jëblu ci yonent bi daal di ne yonent bi sama waa kër xamuñ ñu jëblu na moo tax ma bëgg nga digal ma loo may digal yonent bi ko yow kenn nit nga waaye nag seetal loo mën nga def ko ndax xare moom ay pexe rek la mu daal di gaaw ci ay pexeem dem ci yaxoot yi bani xoreeso yi ci biir Madina ñu leen yéen de xam ngeen cofeel gi dox sama diggante yéen ak mbokk yi dox sama diggante yéen ñu ngi ko waaw mun leen dafa am lu ma leen bëgg a xamal ñu ne ko mun leen ñee ngeen àndal farfarloog bu ñoom di firi colère gi doxoon seen diggante ak Muhammad ñoom dëkkuñ ci dëkk bi bu yàlla dogalee ñu gañe Muhammad dañuy dellu fañ dëkk bu yàlla dogalee Muhammad gañe leen dañuy dellu fañ dëkk yéen ñii nag ci dëkk bi ngeen dëkk mun leen fee bàyyi ko bu ngeen waxee ba ànd ak ñee far Muhammad gañe leen da ngeen am jafe-jafe ndax dootu leen nekk dootu leen mënante nekk moom ci dëkk bi te xamu leen fu ngeen di jëm bàyyi leen xel loolu ñu ngi ko ana loolu kon li ci tax ñu ngi ko wax dëgg ana luy taxe mu ni leen da ngeen leen di laaj ay ay garanti da ngeen leen di wax ni leen bala ñoo ànd ak yéen di xeex Muhammad da ngeen ñuy jox ay garanti yi nga yi ñu tey yoxoo di ni ko wax nga dëgg kon noonu la ñuy def mu daal di fay ràcc ci ko dem ci waa Quraysh ni leen xam leen cofee gi ma am ci yéen ak lu ma saq yéen ñu ne ko waaw mu ni leen yoxoo ci bañu Quraysh sax réccu na ñu ànd gi ñu ànd ak yéen ak firi gi ñu firi seen digg colère gi ñu amoon ak Muhammad léegi pexe mañ lal mooy nee nañu ba dañoo ànd ak yéen xeex danañu leen laaj ay garanti te garanti yooyu ñu leen laaj na ngeen xam ne bu ñu leen ko laajee dañu koy jox Muhammad fexe leen boobu bu ñu leen ko laajee bu leen bu leen leen ko jox ñu daal ñu ko wax bi mu waxee loolu ñu dem ba ba taxawaay bi yàgg ci ñoom ñu yónnee ñoom yéefar yi si yeexuti ba ñu xoolee sax ngir bëggoon rek bu ñu bàyyi ko fee ci seen gannaaw ñoom ñu jógee leen ci kanam rek bu boobaa dañ leen mën a tañ ci faagaag leen mu jar ñu yónnee ci yaxawati benn xoolee suñu leen taxawaay bi yàgg na te fii di bérébu taxawaay li ñu yoroon ci yóbbal jeex na daanaka sunu biir amatuñ duñ dund sàkk leen pexe jug leen ñu dalal la ci kaw mu xanat mu jeex yaxawati benn xoolee suñu leen tey nag guddi la guddi gaaw la te yéen gaaw xam ngeen ni ñun sunu kilifa yéen jalgate woon gaaw jafe-jafe yi leen ci fekk xam ngeen ab yaxoot moom ñu mu wutal da jalgatee te bisub gaaw di ci xeex mbaa mu ci def dara te it nag sax bu gaaw bu jàllee it ñun bi ñu ànd ak yéen di xeex te dinañu noo jox ay garanti ay tay la ñun ñu ne delloo leen kàddu yooyu ñu ne daal ñu lay ñu xay mu wax dëgg ñu ne ñu xay mu kon wallaahi wax leen dëgg di ñu dugal na ay daal di yëf yi daal di si ak tasaaroo am ci seen diggante ñoom ñaari yëf yooyu bi tasaaroo boobu amee it nga xam ne xel yi de xol yi àndatuñ guddi googu yàlla yebal ngelaw lu sedd lu bëree bëri loo xam dafa ñëw. mabbu xëy na yéen defoon daniel tasaare lu bari ci bagage ci guddi googu la yàlla yónni la yonente bi sallallahu alayhi wa sallam yónni benn waaye ni ko demal xoolal ma ci luñ nekk rek lépp nag yonente bi muy ñaan jullit yi di ñaan ñaan gi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam doon ñaan mooy allahumma munzil alkitaabi sari'a alxisaabi ihzim alahzab allahumma hzinhum wasal wasalsilhum yàlla yéen wàccee téere di ko gaaw ak réglé yal na nga dàq kuréel yi yàlla yal na nga leen dàq yal na nga leen rëng-rënge maanaam yàlla daa wuy ñaanam googu yabal fa ngelaw mu daaneel lu bari ci xayma ya mu yabal it ay malaayika yoo xam ne dafa tabbal tiitaange ci seeni xol ñu ñëpp ci guddi googu la yonte bi yónni Xusayfa ibnu Yamaan ne ko dama xoolal ma ci luñ nekk waaye ba mu demee fekk ñu nekk ci waajtaay ngir jóge fi ndax ginnaaw nañ liñ bëggoon taxaw nañ ci ba sonn te liñ bëggoon dara mënu ci am dara dañu war a ñibbi yàlla fegal ko xeex boobu kon mu nan la ko fegale xeex bi mu dellu Madina ci bésub àllarba di juróom-ñaari fan yu des ci weeru sil xanda nga xam ne daal ñaari fukki fan ak ñett ci weeru sil xanda tolloog bésu àllarba ci la xare boobu jaax yonente bi dellu Madina mu mel ni xare ahsaab boobu ay pertement bëriwu ci ndax daanaka ab xeex amu ci waaye nag bokk na ci xare yi gën a am solo ci xare yi diine ji taxawal gannaaw xare Badar ndax kattan gu toll ni fukki junni soldaar yëfar yi nañ fexe ba dajale ko mun ñoo dajale waar lu ko ëpp te bu ñu dajalee loolu te taxut lañ bëggoon a taxawal taxaw diine jii di door a door a sosu ñu bëggoon koo faagagal mënta faagagal kon day mel ni seen i pexe da daan jeex moo tax yonent bi sam dañ fa jógee mu ne léegi nag ñun ñu leen ci xeex yi waaye dootuñu ñu xeex xeex seeti ñun ñu jóge jël ay nganaay di leen wuti waaye dootuñu wut seeti ndax liñ mën def def nañ te taxul ñu jàll waaye ci bés boobu mu delloo bés bi mu delloo Madina ba ba nekk nekk Ummu Salama di laal ndox Jibril fekk ko fa ne ko mbaa dangaa teg seen nganaay ne ko malaaka yi ñoom teguñ seen nganaay de sa borom li mu la digal mooy dalal di dem ci giiru ba ñu xuree sa ko ndax ñoo ci des dinaa ay wakkat lañ yonte bi daal di déclaré ni képp kuy déglu ndigal te di ko topp bu mu jullee takkusaan fu dul ca ba ñu xuree sa daal di fab ibnu abdullahi ibnu maktum moom la teg ci madina fab drapeau bi jox ko ali ibn abi talib daal di ko demal ci ba ñu xuree sa jëti ji ma fa ali moom ba mu demee ba jege leen dégg ñuy wax wax ñu ñaaw ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ba dafa dëpp ni yonente bi dëppal yonente bi ne ko xanaa da ngaa dégg ñuy wax ñu ñaaw mu ne ko waaw mu ne ko waaye su ma demee dootuñu ko waxati ndax yàlla def na def tiitaange ci seen xol fekk jibril ne na ko maa ngi dem jiitu ji la dugal tiitaange ci seen xol kon malaayika yi ñoom seen liggéey mooy tiitaange li ñu tàbbal ci xol yéefar yi yonente bi war a jàkkaar ba àgg ci benn teen bu bokk ci teeni benn xuree sax ñu di ko wax biiru anna jullit yëpp daal di jóg topp ndigalu yonente bi sansom takkusaan bi mu leen fekkee ci yoon wi am ñu ne ñun de duñ ko jullee fudul ca beneen xurees ndax yonente bi ñaan na kuy déglu ndigal ko topp bul jullee takkusaan fudul ca beneen xurees ñu ci des it seenu dégg may leen ni yonente bi loolu bi mu koy wax dafa bëgg ngeen bañ a yaxamte gaaw jóg dem waaye waxtu julli bu jotee dañu ko war a julli ñenn ñi jullee ci yoon wi ñenn ñi takkusaan ginnaaw gee lañ ko julli waaye yonente bi yëdd ci kenn ci ñoom taxul mu yedd ci kenn ci ñoom ci ñaari dégg yooyu noonu la arama bi jógee mat ñetti junniy nit ba àgg ba ne xoolee sa daal leen di encercler wër leen bi wër gi taree ba tar ba yàlla def tisaangi ci seen xol ñu yónnee ci yonente bi ñu ko yabalal nu aba lu baaba ñu diisoo ak moom ndax abu lu abu lu baaba boobu seen seen bu ànd doloon am na lu mu jaxasoo nag ñoom daal ba ay alalam ak doomam sax ñu ngi woon ci seen biir raison boobu yàlla yonent bi yabal na leen Abu Lubaaba ba mu ñëwee góor ñi ñëw jigéen ñaa xale yëpp di jooy ci kanamam mu am ci ñoom yërmande moom Abu Lubaaba ñu ne ko aw loo gis ndax ndax dafa woon dañoo war a wàcce dugg ci biir ate Muhammad maanaam jox ko suñu bopp rek boo xam lu mu ci ate ñu ngi leen waaw waaye bi ñu leen di wax waaw ñu ngi fa loxo bi junj boole gi di leen wax leen waaw waaye bu ngeen duggee mu rend leen ne rey di leen def. bi mu junjee loolu bi mu ko defee rek la la toq ci xelam ni war na yàlla war na yonente ba mu fa jógee dafa daal dem Madina direct dem ci dem ci biir jàkk ja daal di yeewu boppam ci benn kenn ci kenn jàkk ja daal ni bañu xoolee si dootuma fa demati mukk ndax ginnaaw fala suuf sama waree yàlla ak yonente bi dootuma fa taxawati te fii ma yeew sama bopp yi yonente bi képp moo fi mën moom mu fiy jële ba muy yeewu ci boppam daal du ma fi jógee yonente bi bi mu yeexee ñibbi si ñu laaj ko mu laaj ci ni waaw moom yàgg na foofee mu demoon dañu ñu wax ko la mu def ndax dañ ko laaj ni ko ndax mën nañoo dugg ci wàcc ci atab Muhammad mu leen waaw ba noppi junj leen ni leen waaye agré leen daal di daal di junj junj jëm ci bële goon leen waaye bu ñu ci wàcc agré leen yéen itam daal bu ñëwoon dama jéggalu ko yàlla waaye ginnaaw dem na ba def la mu def nag du ma ko yewi te du yàlla moo wàcc moo ko tuub moo ko jégal bu ko yàlla jégalu daal du ma dem di ko yewi waaye teewul li mu leen di junj junj agré teewul ñoom yaxoot yooyu dañoo mujj wàcc ci atab yéen itam ndax pexe amut bi ñëwee ni ko ñoo ngi nii yonte bi digle ñu yeew leen kenn ku ne dañoo fab say loxo yeew ko yeew yeew ko ba mu dëgër yeew góor ñëpp jigéen ñu dajal leen dar leen keneen léegi giru awus daal ñëw ci yonte bi ni ko yow kat la nga defaloon banu xaynu xaa muy jégal nga leen ñu dem te ñooñu ñoo féete woon ak suñ mbokki xasaraj yi te ñii ñun ñi la ñu féete kon li ñu bëgg nga nga nga jégalal ñu leen comme na nga jégale woon banu xaynu xaa yonent bi ni leen ndax su àtte bi nekkee ci loxol kenn ci yéen dana leen neex ñu ne ko waaw mun leen teg naa ko ci loxol Saad ibn Muaaz lu mu ci àtte rek ñu ne ko waaw loolu kay d'accord nañ ci yonent bi yónnee ci Saad ibn Muaaz boobu ma nga Madina fekk dafa amoon ay gaañ-gaañ yu mu gaañoon ci xarab Xandaq boobu ba tax ñëwut léegi ñu dem ñu war mu war ci am ñu waral ko ci am mbaam andi ko ñu ngi ko wër noonu ñëpp naa ko na nga fexe ba def ci lu rafet ndax yonente bi bi muy lay bàyyee àtte bi lépp dafa bëgg nga rafetal si diggante ñoom mu ne cell tontu leen ba coow la bare bu bare buñ leen xanaa Saad moom Saad day jamonoom teew na mu war mu waratee bañ a ragal aw yeddeel ci yàlla mbaa mu di ci bëgg aw tagg tontu loolu la leen tontu ñenn ñi la neex kon kii da leen di rey daal di dem Madina tàgg yaxoot yi ñu rey nañ leen bu ñu agsee ci yonent bi sansom mu ne yonent bi ni jóg leen gàttandu seen sang bi ñu wàccee sant ku am yaram la woon te doon ko taaru muy te dal léegi ñu yaat na ko ñii kat yonent bi ci sab atte la leen wàcce naan loolu ci atte rek mooy wéy sant diñ leen sabab atte mooy wéy ci ñoom ñu ne ko waaw mu ne mooy wéy ci jullit yi ñu ne ko waaw mu ne mooy wéy ci ñi nekk ci wet gii wet gi yonente bi sallallahu alayhi wasallam nekk warmaal gum ko warmaal nag moo tax mu ne wet gi waaye gëstuwoo fa sax yonente bi ko waaw ak ci man ak ci sama kaw mooy dox ci man mu ne li ma aate ci ñoom mooy góor ñi nañ leen rey jàpp jigéen ñi gone yi séddale àll bi yonente bi lii mooy atte bi yàlla atte ci ñoom kon ñoom ñooñu dañu leen a dajale def ay ngaare ca marché Madina ñu am na ñu ni juróom benn téeméer nit lañ jëm juróom ñaar téeméer am na ñu juróom ñett lañ jëm juróom ñeent téeméer waaye ñoom ñëpp dañu leen rey ba ñu leen di rey di def saa bu ñu jëlee mbooloo yóbbu rey leen léegi ñu wax seen kilifa bu waaw lu xew kilifa leen leen yéen du ngeen xel lu mukk ñun saa bu ñu leen jëlee yóbbu te kenn du desaat ma dañ leen di rey yéen ko tey dañ leen di rey waaye noonu lañu leen reyee ñoom ñëpp di yaxu di bañ xëy fa xare boobu ñu ngi amoon ci weeru seen xianda ci atum juróom ci gàddaay ginnaaw xare boobu am na ay yónent yu bari yónent yu yónni mooy ba ci jëkk mooy sariyatu Muhammad ibn Maslama ñu ngi ko yebal ci weeru Muharram ci atum juróom benn ci gàddaay gi xaswatu bani Lihyaan ñooy ñi reyoon fukki saxaaba yooyee ca ca Rajia dafa yónent bi sansam ci jumaat ula ci atum juróom benn ci gàddaay gi li jóg dem di xare jag ñoom waaye dañoo daw làqu ci biir doj ji ba jàppuñ ci kenn bu ñetteel bi mooy sariyatu Ukaasha ibnu Muhsin moom itam yàlla daf ko yabal ci Zil Qassa ba jees mooy sariyatu Muhammad ibnu Maslama ba tey beneen la moom itam Zil Qassa lañ ko yabal waaye dañ ko fa yabalee dañoo làqatu bañ jaar fa ñu rey la ñoom ñëpp ba mu des Muhammad ibnu Maslama benn Muhammad képp moo ci rëcc ca saase yonent bi yabalaat Abi Ubayda ibnu Jarrah mu demaat Zil Qassa waaye ba mu demee ba àgg dañoo daw làqatu ci biir doj yi ba kañ jàppale mu yabal Zayd ibn Harisa mu dem fa ñuy wax xumum mu yabalaat ko ba tey fa ñuy wax al Is yabalaat na Seydou ba tey ci waadil xuraa mu waaye waa waadil xuraa dañoo dal ci seen kaw rey leen ñoom ñëpp ba mu des ñetti nit ñetti nit ñooñee Zeyd ca la bokk waaye ñetti ñetti nit a ca mucc ginnaaw loolu xareb al muraysiya ñu di ko tuddee raswatu banil mustaliq ba tey xare boobu ñu ngi doon ci atum juróom ci gàddaay la ko sabab mooy xaaris ibnu abi bayraar ñu doon sang banil mustaliq dafa wër ci waa këram ak ñim man dara ci ñoom ci arab yi bëgg ñu jàppale ko mu xeexal yonent bi yonent bi mu déggee loolu daal di yebal ku ñuy wax Burayda ibnul Xasib ngir mu wérlu xibaar ba xam wér naan waaye ginnaaw bu mu leerloo ba xam ne lu wér la la daal di woo saxaaba yi daal di gaaw ànd ak mbooloo jug ngir xare daj ci seen kaw bala ñuy jóg am na mbooloo munaafiq yu ci àndoon yoo xam ne xare ya ko jiit sax doon dem waaye xare boobu yàlla dogal na ñu àndaale ci fekk Xaaris ibnu Birar yabaloon na nit ngir di ko gëstuloo xibaari jullit yi fu ñu toll ñoom tam waaye jullit yi jàpp ko daal di koy rey bi mu ko reyee nag loolu indil xaalis ak tiitaange ju réere ñi mu jotoon a dajale ci arab yi it loolu tiital leen ba ñu daal di tasaaroo bàyyi ko fa yent bi àgg ca fa ñuy wax almuraysiya ñu daal di waajal xeex bi jot nañoo sànnente ay fett ab diir yonente bi da joxe ndigalul ni na ngeen dal ci seen ko benn yoon ñu jóg dalandoo ci seen ko benn yoon noonu lañ leen dàq gañe leen jàpp ñenn ñi rey ñenn ñi benn jullit lañ fa rey ci xare boobu ci la xadisul ifk xadisul ifk yaakaar naa siiw na soxna Aïcha radiallahu anha moo moo moo moo ko daan nettali di wax ni yonente bi di daan def saa bu masaan jóg di dem ci ab xare ba muy tegoo bant ñun jigéen yàlla dogal bant bi dal ci sama kaw ma war a ànd ak moom dem ci xare boobu waaye ne bi mu demee ba xare bi jeex bi ñu wëlbati ko ba wàcc ci benn ci benn wàccuwaay ci wàccuwaay yi ñu wàcc ba dañoo àgg ma dina nee na sama taqrir ma wàcc dem ma di ko wëri bi ma koy wër far guddee ca bi ma koy wër loolu moom moo tardeel ba ñoom ñu waaj ba jekk ba jël berkande bi ma daan nekk teg ko ci kaw gileem gi ba dàq dem nee na boobu it mbooloo koy jëlandoo di ko teg ci kaw gileem gi seenu maandu te mayu leen ñuy ubbi ba xam maa ngi ci wala déet tey booba gone laa di suma diisaay bopp su ma ci nekkee ak su ma ci nekkul danañ ci mën a xam dara waaye loolu lañ def yàlla dogal bañ demee ba àgg yonte bi ñu ko gisit soxna Aysa toog na ngir jàpp ni rek du ñàkk nit dana ko danañ ko bàyyi xel jël si waat ko daal ba ñu ko gis jaaxle na fa lool ba jooy fa ba sonn gannaaw bi benn saxaaba bu baax waaye nag moom itam dafa mel daa bari woon ay nelaw daan des gannaaw daf ko seen ñëw daan ne kii de inna lillahi wa inna ilayhi rajiun kii de nday jullit ji la ummul muminin soxna Aysa nag daal kàddu googu kàddu googu moom a yee nee na bi ma jógee it dafa daal di yeesal gileemam ma war ci waxut ak man waxuma ak moom bañ dem ba dara ci waaye bañ àggee naa fekk yi occasion ni ci loolu wax ci wax ju bare bare daal di koy tuumaal ñenn ñi ne daal loo ci mën a dégg kenn mucc ci ci sama rob loolu def tiitaange xool ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ba xam xamul ba xam ay waa këram dañoo def lu ñaaw wala déet soxna si nee na li ñuy wax yëguma ci dara gis naan daal yonente bi ba mu masaan tawat ni mu may kopp-koppale ak yërmande yi mu amul ci man daal gis naa ne wàññi ko wàññi ko na ndax damaa tawat te saa bu ñëwee day taxaw ci buntu bi rek ni kayo fa ciy ko naka ngeen daal di dem ba fan yooyu nee na ma ñaan ko ne ko dama bëggoon a dem ca ca suñ kër nee na mu jox ma ndigal nee na ma dem nekk fa ab diir waaye nee na li ñuy wax ci dëkk bi lépp lu tax mu yëg ko ba ànd ak bàjjanam ñuy dem muy doxi xaajat lu insaan booba ayat kiiraay li wàcc nee na am lu ko fàktal mu ne temps isa fulaak yàlla nga di ko tuskare muy ku ñuy wax mustah soxna si nee na ma ne ko ah bàjjan li nga wax kooku bokkoon ci waa Badar nga di ko ŋañ nee na mu ne ma xanaa xamoo li mu lay tuumaal nee na ko lu mu doon nee na mu nett li ma ko nee na ma ne ko nit ñaa ngi may waxal lii ci dëkk bi nee na mu ne ma nit ñaa ngi la koy waxal waaye nag jërul nga ci jàq xet yi ndax nit jigéen buy sëy ci béréb borom këram fonk ko fokk ak wujje dina dugal nit ñi ci lu ne mën nañ ko ko taxal waaye son xaalis ne loolu mënuma ko dékku sama grand koñ fératul guddi fératul bëccëg may jooy guddi ak bëccëg wax yi gii wàccul leeral ci yent sans son tax yent bi du man lu dul di diisoo ak nit ñi ba xam lu ciy taxe ak lu ci xalaat diisoo ne ak Seydina Ali ni ko lu ciy taxe Seydina Ali ni ko jigéen ñi dul moom bari nañu yàlla tegu la kenn jigéen bu toll nii loolu day mel ni dafa jubloo junj ni ko rek mën nga koo fas si wut ñeneen léegi mu laaj ñeneen am na keneen ku mu laaj koo xam ne ko man de sa waa kër ñi xawma ci dara lu ñaaw xam naa daal moom gone la mën nay mooñ sax nag jur gi mbaa ginaar yi ñëw di lekk mooñ ngi du ko waaye loolu loolu xawma ko ci nee na ci loolu lañu continuer ba benn bis yonte bi nee na xëy si kër Aboubacar dafa daan ñëwit ñu ngi toog léegi nee na bi ma toogee sama yaay toog Aboubacar toog yonte bi ñëw yonte bi ne ma Aïcha li ñu lay tuumaal bu fekkee yaa ko def nangu ko te jéggalu ndax yàlla ko bari njëgal nee na ma ne Aboubacar tontul ma yonte bi mu ne ma oomalu ma la tontu nee na ma ne sama yaay tontu ma yonte bi mu ne ma oomalu ma la tontu nee na ma ne ko man de su ma nee maa ko def dinaa tuumaal sama bopp lu ma deful te xam naa def ma ko su ma leen nee def ma ko yëpp tàbbi na ci seen i xel ba ngeen jàpp ne maa ko def ba noppi bu ngeen ci jàpp dara kon oomu benn wéeruwaay bi may wéeru bu dëgg fa yaquba wéeru woon muy fa sabrun jamilun wallahu almustaanu ala ma tasif muy wéeru ci yàlla daal la ma daal di tàmbaliwaat ak jooy na ndeysaan waaye bi fi yonent bi dafa jóge ci jotaay bi wax yi gi wàcc te wax yi gi daan def buy wàcc bés bi lu mu sedd sedd yonent bi ñaq day ñaq tooy xëpp situation bi day sotti ko ba nga xam ne wax yi gaa ngi bëgg a wàcc mu ñu tekk ñëpp ñu tekk bi wax yi di jeexee mu muñ daal di ah Aïcha bégal ndax yàlla setal na la sama yaay dama jógal dem ci wetu yonent bi nee na ma ne déedéet su may sant kay yàlla daay sant ndax su ma setee mu ma set aaya bi daal di wàcc muy inna allazina jaau bil ifki usbatun minkum la taxsibuhu charran lakum bal huwa xayrun lakum li kulli mriin minhum maktasaba min risq léegi noonu la yonent bi jëlee mbooleem ñu ci feeñoon ci wax bi ñu dóor leen juróom-ñett fukki yar ba mu des sa Abdullahi ibnu Ubay kooku daal xam naa feeñoon na ci te dóoruñ ko xaj na xekk maa tax mu bañ ko def kon foofu la xare boobu jeexee loolu ci xew-xew yi amoon ci xare bañ mustalak boobu ci la am léegi nag yonente yi yonente bi yónneewaat gannaaw raswatu muraysiya wala raswatu banil mustalak jëkk sulh xudaybiya ci gàttal mooy sariyatu abdurahman ibnu awf yabal na ko ci këri bani kulayb ci dawmatul jandal yabal na Ali ibn Abi Talib ci bani Saad ibn Bakar yabal na Abu Bakar ci waadi Xura yabal na Kursu ibn Jaabir al-Fihri ila al-Uraniya te ñu wax al-Uraniya fekk ñoom des na wax mat na ab leeral ndax ñooñu ak giir lañ ko bokk ci Hakkal ak Urayna dañu ñëw woon dañu jëblu am Madina ay fan bi ñu fi amee ay fan lu mel ni rab bu dikkal leen mu mel ni climat bi dafa dafa dëppoo ak ñoom ñu wax yonte bi ne ko ñun ak jur lañ xam akub àll yonte bi ni leen dem leen ca bitib madina di naan ca sawum gi leen ya di naan ca saw ma kon da ngeen wér boolem leen di naan ca saw ma ak soow ma da ngeen wér bañ demee ñu war ko rey sàmm ba wut ay pont daaj ko ci bët yi dagg dagg ci loxo loxo yaag tàgg noonu lañ ko dagg te buñ ko waxee yonte bi sanson mu naqari ko lool mu yebal ay nit ñu dem gëstu ji leen bañ leen yebal na ñaar fukki saxaaba ni leen ni ngeen dem toppi leen bañ leen toppee ba gis leen indi leen yonte bi nañ dagg seen tànk seen loxo te fam ay pont daaj ko ci seen bët te sànni leen fee ba ñu dee nañ def sàmm rek noonu la noonu la doxee ak ñoom kon foofu la xare course mu jàll bi mu yem kon foofu la wax jooju jeexee ci fan yi ñu jëm kon dañuy waxtaane umratul xudaybiya ak sulxu ba ca am ak la ca aju kon di taxaw foofu di ñaanal mbokk jullit yëpp ak dégg ak jariñu yal nañu yàlla defal ak dégg defal na ak jariñu defal ñu sax ci diine ci ni ko yàlla bëgge defal ñu it siira bi nga xamante ne moom lañu jàng mu doon loolu jullit yi dañ ci jaare ba delluwaat ca la taxawaloon diine jëkk ci barki Cheikhul Khadim kon maa ngi nuyu jullit yëpp di leen sant di leen sargal wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatu